di leen ziyaar di leen béggee di leen ñaan yàlla jàmm di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu ñëpp defal ñu jàmm ci darajey sayyiduna Muhammad tey nag ñu seet ci tabaarakallaahu Serigne Mouhamed Gueye fii ci Mbuur tabaarakallaahu di ki nga xamante ni kenn la ci gaa yi Seydi Ahmada Tidiane mu ngi noonu tabaarakallaahu tey nag ñu seet ci ku ñu bëgg a ay mbir yu yaatu nem soob na yàlla incha allahu Serigne Mouhamed Gueye ñu ngi lay nuyu baax di la ziyaar ay euh, fay na yo Ahmad Dame ñu ngi lay fay na yo bu baax a baax di nuyu mbokk mi nga àndal mm-hmm. di leen dalal ci daara ji incha allahu taala mm-hmm. di am kontante lool ci seen teewaay fii mm-hmm. di leen wax ne marhaban wa ahlan wa sahlan mm-hmm. mu nga kon ñu delloo la kàddu xóot tabaarakallaahu bëgg nañ waxtaane ci mbirum tarixa bi ñi nga xam ne dañoo taxaw di ko ŋàññi tabaarakallaahu nag bëgg nañ waxtaane te yow xam naa ne yàgg nga bëgg a def ak ñoon déewoo tey nag ñu bëgg a teg mbir incha allahu di la laaj ay questions yu aju ci yooyu bëgg nga tontu ñu ci incha allahu dama lay nuyu bu baax sëriñ bi di kontaan ci dalal bi ñu dalal waaye question bi may bëgg a laaj ñi nga xam ne dañuy taxaw du yor so yoo xamante ni lu nañu yàq ko lu nañu wax ko ko te xam naa ne yow sirif bi rek nga bëgg moom rek ngay bëggee léegi ma bëgg xam ñoon question xam nga dañuy taxaw di jéem a wax naan lii biddaa la ak biddaa léegi ma bëgg a laaj sëriñ bi lan mooy biddaa waaw mu ngoog euh, bidaa moom lu mat a mat a xàmme la mhm. li ñu njëkk a wax rek Cheikhuna Ahmad Tidiane Cherif moom dafa ngantal dafa dog ngant bépp boroom xam-xam mhm. ci ne euh, bañ ko waxee ne ko ndax des na la waxal lu lu waxuwut dafa ne waaw mhm. waaye su ngeen déggee dara mu bàyyee ko ci man na ngeen ko peese ak balance su su dëppook moom ngeen jëfee su dëppoowut moom ngeen bàyyi bi maanaam ndax waxuma ko ndax du wax lu wuteeg sharia maanaam kon tarixa bi lu lépp lu ci tegu ci sharia la tarixa bi minal bidaaya ila nihaaya amut lenn loo xam ne lu wuteeg sharia la muy alquran wala sunna mhm. dama ci def faral di def taxaddi mhm. ne fii ba màkk laa wax waaw benn masala ci tariqa bi wala benn wax bu na cheikhuna ahmada tijaani sharif wax ci tariqa bi mhm. mu wuuteeg alquran wa sunna ku ko ci gis na yëkkati loxoom te ñëw nañ nañ toog loolu man laay sàkku du ko commencé ci njiitu wahabi yi nekk senegal mooy Ahmed Lo ak Omzo ak mbooleem ku nekk ci ginnaawam amaana comme ci sa laaj bi mhm. nga ne masalan euh, tariqa bi euh, bidaa waaw bidaa bidaa mu nga al bidaa euh, arab la al bidaa dafa am lu ñuy wax bidaa ci luga ci lugal arab mooy mhm. luñ fent luñ fent loo xam ne jiitu wutoon bu dee ci istilaaxa nag ci sharia mooy luñ sos ci diine ji te amul cosaan te amul cosaan waaw lépp luñ sos ci diine ji te amul cosaan ci lislaam ci alquran ci sunna loolu la ñuy tuddee bidaa ah. hmm. bidaa boobu nag mazhabul jumhur te li may wax boo demee ci charxu muslim imaamu nawawi mhm. ci xadis boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax man sanna sunnatan xasanatan mhm. fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmi alqiyamati mhm. ba wa kadalika man sanna sunnatan sayiatan daf ne bi li muy tegtale mooy al taatariha ahkaamul xamsati bi bidaa dana yóbbuwaale juróomi atte yiñ sharia Mm-hmm. bidaa dana nekk farata mm-hmm. bidaa dana nekk sunna mm-hmm. bidaa dana nekk lu ñu sopp bidaa dana nekk lu xaraam bidaa dana nekk lu ñu sib boo demee ci manhaju zaqaaq ci qawaidul mazhab imam malik kadalika lii la wax bidaa dana nekk kenn ci juróom yi léegi nag ban bidaa mooy bidaa bi war kon bu ñu waxee ne lan mooy bidaa wax nañ ne mooy loo xam ne luñ sos ci sharia te amul cosaan maanaam luñ sos ci sharia luñ sos. te amul cosaan ci sharia loolu la ñuy wax. nga gis ne kon ci luxo bi mooy loo xam ne moom mosul am. ñu ne bidaa bi nekk waajib mooy lan. lépp loo xam ne tey farata la pour ñu sàmm ko. comme Alquran. yenente bi bi muy faatu. bindul ko binduñ ko. te joxewul ndigal ñi bind ko mhm. ba mu lépp da lépp laa bëgg wax dajalewul ko te joxul ndigal ñi dajale ko xadis noonu dajalewul ko te joxewul ndigal ñi dajale ko mhm. waaye bidaa waajiba la ndax l'islam bi dafa nekk waajib ci xeet wi ñu tiye ko te tiye mhm. l'islam bi nag première mu ngi ama commencé ci alquran ak ci sunna kon bidaa nekk waajib bidaa dana nekk sunna bokk na ci salaatu taraawix comme ni Seydina Omar waxoon mhm. nicmat bidaatu haadihi mhm. salaatu taraawix yenent bi sallallahu alayhi wa sallam xataa ñi wax ne doon na ko def mhm. bi muy dund waaye dafa dem gaa yi fekk ci ko mu ragal ne su continuer ñi farataal ko ci xeet wi mu tere leen ko te pourtant bi mu faatoo dañu kon comme dafa ragal dañoo ragaloon suñ ko defee mu farataal ko ci xeet wi léegi mu ne kon mu aaye ñu ko ba mu faatoo ba ci jamono Seydina Omar. saxaaba yi ridwaanullaahi alayhim dajalee mu mbooloo mu bari ñu def salaatul taraawih yéen Seydina Omar ba mu ñëwee def ne niamat bidaatu haadi bi maanaam ak a baax. ak a rafet. bidaa bi bi ñu sos ci ginnaaw yenent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam. kon bidaa. kon waajib bi boobu la. waaw uh-huh. bi ma wax nii mooy sunna bi. Uh-huh. salaatu taraawih. Uh-huh. mooy sunna bi waaw sunna la waaw la. encore defuñ ko ci kanamam léegi biddaa moom mën na ñëw nekk sunna. biddaa dana nekk sunna. Uh-huh. maanaam cadre bi muy nekkee. Mm-hmm. su fekkee masalan tey uh, dafay dëgëral sunna. Mm-hmm. Mm-hmm. biddaa boobu sunna lay doon. bu fekkee dafay jëmmal farata. biddaa boobu farata lay doon. bu fekkee masalan lu dagan la. biddaa boobu mubaaxa lay doon. dafay nekk lu dagan. su fekkee masalan da luñ sopp la lu lislaam sopp la lépp lu koy dëgëral boo bidaa bu sopp lañ koy tuddee bu fekkee nag lu xaraam la lépp lu koy jëmmal bidaa xaraam bidaa bi xaraam mooy bidaa bi amul cosaan ci alquran amul cosaan ci sunna bi mooy bidaa bu xaraam mooy bidaa bu xaraam mais bidaa mën na nekk waajib waaw mën na nekk tamit sunna mën na nekk sunna mën na nekk mu baax mën na mën nekk tamit xaraam mën na nekk waajib xaakala yi daal waaw charxu muslim boo ci demee imaamu nawawi leeral na ko ci leer kon nag kon nag ñoon ñi nga xam ne dañuy baj baji war nañu mën a xam luy biddaa mhm. te léegi dama dégg sànq nga wax ne mhm. euh, fii ba màkk nga wax mhm. na benn masala bu nekk ci fiq tarixa bi wala li aju ci tarixa bi lu mu mënta doon mu am ku koy sikki sàkk mën na ñëw togg ak yow loolu loolu loolu dong laay sàkku nag loolu rek ngay sàkku loolu rek laay sàkku maanaam ci ci ci tarixa bi waaw borom ci alquran la ko teg ci sunna la ko teg waaw c'est que nag daf ne peese leen ko ci charia léegi na kan mooy peese ah. kan mooy peese uh-huh. masalan sa niveau maanaam ku jàngut uh-huh. mënul peese waxu Cheikhuna Ahmed Tidiane Chérif mënul ko dégg kon gaa yi gaa yi weerante dañoo déggul waxi dañoo déggul jegewuñoo ñoo dégg sax jaaruñ ci yoonu dégg sax am ci ñoo xam ne nag ndax moom ñu ko di ñetti rek lañ kii moom dafa xamut waaw kii nag dafa xam waaye intérêt tax na masalan munul dellu ginnaaw comme ñu mel ni docteur Ahmed Lo. Uh-huh. mu ne xam na ne masalan contre gi tey tiraanga àdduna bi muy mu yore. Uh-huh. contre gi mu contre tariqa bi moo ko ko yóbbee kooku tey kon àdduna mënul yàgg ba mu génn publiquement wane ne tariqa tijaan sunna la. est que. ndax da ciy dund moo tax. Uh-huh. am ci koo xam ne nag moom moom bu duggee néegam xam na ne moom lii moom lu wér la comme genre genre am googu am na ci koo xam ne moom dafa xamut aslan kooku nag moom bu boobaa moom dañ koy jàngal rek. waaye ki fee teerlu moom moom taxut a wax comme ça gi moom taxut a ndax booy wax ba ilaa mi diine doo du fekki ci waaye ku bëgg dëgg daal man ku bëgg dëgg laa wax mënoo génne ci tariqa bi benn masala wala benn wax boo xam ne mën nga wax ne dafa utee alquran wala sunna laa wax mais léegi wax ji kon dafa leer léegi kon ñoon wax ji ñuy toog di baj baji mais man li ma jaaxal wax ji li muy bari bëri yëpp ñoon nangu ñoo toog ak gaa yi waaw dañu ragal xam nga xam nga bu yàggul rek waajoo ñuy wax Mor Kébé man jokkoo naa fekk Seneweb la xawma waaw seen bopp waaw waxtaan naa ak borom lu yàgg pour mu dimbale ma rek ba ba ma bañ toog benn jotaay ndax moom dafa wax giraawaale gi mu wax ci semaine bi ñu baree baree bare dalal ko ci. Uh-huh. donte bi ma ko waxee dafa ne moom dam ko daf ko dalal ci daf ko dalal ci beneen mbir waaye du wutoon comme ci la waxoon li ma waxoon ci tarixa bi. Uh-huh. waaye moom ñemewuñ toog ak kenn loolu fukki xale ak juróom xalaatul ko. xalaatuñu ko ndax Ahmed Lo Cheikh Tidiane Gaye ba bi muy faatu mi ngi sàkk toog ak moom debaa public Sénégal yëpp di seetaan. waaye ñemewuñ ko kenn ci ñoom xalaatul ko ku ko ci ñeme nag bisimilah. ku ñeme toog ak yow. waaw. ku mu ci mën doon. bisimilah waaw Axmad Lo ñëpp ñëpp. <laughs> ñoom laa bëgg ku ñeme ku ñeme ñu bàyyi ko xel. mu nga ñoom ñoom laa gën a xiif ñoom laa gën a bëgg sax. ñu bàyyi ko xel parce que nag li ñuy ŋàññi tarixa bi bari na. Mm-hmm. lu ñu lu ñuy ŋàññi tarix bi beneen léegi da ngay gis boo yoo xam ne tabaarakallahu mag ñoo ñu yem sax mm-hmm. ñooñu tax neen ba boo yooyu dañuy tuut na di wax lu leen neex mm-hmm. lu leen neex la ñuy wax tarix bi yooyu mm-hmm. nag war na war na jot nag ñu jug si bu baax a baax a baax comme ni comme ni nga xam ne tabaarakallahu mën ngeen siy jógee waaye nag mu ngi noon euh, cheikh ak googu dafa dafa jaadu kooku man kanam toujours mos naa ko mos na mos naa wax ci sama benn xasida bi may nekk Mauritanie uh-huh. bi ma gisee gaa yi nga xam ne dañ jógoon di contour ma ne bokkoon na ca la ma waxoon ziidoo fa ziidoo lana inkaara qudwatina Uh-huh. bi daaka nasdaadu kullal yawmi bin zina uh-huh. maanaam dool maanaam weddi gi ñuy wëd weddi uh-huh. Cheikhuna Ahmada Tidiane ñun maanaam suñu essance la ñun est-ce que suñu essence la boo xam ne moo ñuy yóbbu fañ bëgg dem ndeysaan ndax dafa bokkoon ci mandargaay masalan xaatimul awliya mooy bëri ñu ko noono bari ñu ko contre moom la doon Cheikh Alhaaji Maalik naan kam maddatal munkiri ala diyaad ah, tabaarakallaahu mu ngi noonu euh, euh, kon ñu yëg ne Ahmada Tidiane moom ku koy weddi ku ne. Hmm. toroxal sa bopp. wallaahi wallaahi woykat ba waxoon ne na man sabba Tidiane na hamdan. Hmm, wallaahi kadal xattaaw boo deewee tamit nee na ci yéeféer nga dee. Hmm, ci juum ak ci tay kon nag ñu xam kan mooy Ahmada Tidiane. tabaarakallaahu waaye sëriñ bi balaa ñuy dem. réew mi gis nañ nu mu tëradee. problème yi am yéegal wàcc. léegi euh, ku ñu jiite. nga xam ne mooy président. nga xam ne yàlla waxoon ne wa kadalika jaxalnaa fi kulli xariyatin akabira. mu jërmee tabaarakallaahu nag <laughs> loolu ma dégg sama benn waay mu jël ma yaay goog mu jël ko jox ko ku ci réew mi mm-hmm. ne ne ne mooma léegi ma bëgg a xam ki ci réew mi mm-hmm. li ñu koy li koy jiiñ mm-hmm. ndax defe naa yaa ngi suivre actualité li ñu koy jiiñ lu ñu wax ko lu nañu wax ko léegi lan mooy problème bi exact bëgg naa la ci bëgg naa la ko laaj waaw problème bi foofu man sama xalaat moom mooy maanaam Sénégal dañoo am nattu ci njiit yu dëng hmm. depuis 1960 ba léegi ku toogagul. Mm-hmm. la ngay xeex. Mm-hmm. soo toogee da ci teg sa tànk. Ah. beneen bi masalan kilifa yi nga xam ne tey dañoo waroon taxaw di wañ loxo. Mm-hmm. ki yore doole ji di ko wax dëgg. loolu itam dañ ko manqué. Ah. muy sëriñ si. waaw sëriñ si. Ah. sëriñ si nga xam ne tey ñoo waroon di wax dëgg ki fi ne. buñ ko waxul dëgg. masalan dafa moo maanaam maanaam li bëri mi ngi dem. Mhm. maanaam ñàkk su su moom ki fi nekk nii dama dama naan wax damay wax ne dafa am sens. sens gi mooy jamono wante wut kilifa gu am xadar gu yàlla natt ku mel ni suñu maam Abdul Aziz Dabaax. Mhm. ndax kilifa itam bu tooñee nag war nañ ko xamal ne ko yaa tooñ. Mhm. loolu bu amul problème du fi jóg. man ba tey d'accorduma xataa ñaar ñi ngi jotee soo bëggee problème bi fay doo ñëw ne rek ne ay eh, bàyyi leen xeex wala bàyyi leen xuloo bëgg leen jàmm déedéet. Mm-hmm. gis nga feebar. boo mm-hmm. bëggee mu faju da ngay gëstu ba xam feebar bi li ko waral. Uh-huh. nga traité feebar bi mu mu daal di wér. Ah, uh-huh, comme réew mi ñëpp ko bokk. Mm-hmm. ki jiite yoon wañ ko tegaloon ba yàlla dogal tey mu ñëw ci kaw nguur gi. na teg yoon woowu su ko yàlla mayee pour mu toogaat kenn mënul ci dara su ko yàlla ne dafay wàcc nag kenn mënul ci dara dafay wàcc. waaye sama gis-gis man yoon wi ko indi ci kaw réew mi ci kaw ci ci kaw réew ci ci biir réew ci kaw mu jiite réew mi. Uh-huh. yoon woowu la jël teg ci tànkam te mooy jub ak jubal. Uh-huh. wax dëgg yàlla loolu laa gis maanaam jub ak jubal moom lañ gisoon ba teg ko ci kaw. waaw ndax ñi fi nekkoon. Uh-huh. ñoom dañ doon wax jàkka jaa ngi ku mu neex noddal maanaam bu la neexee yow mii nga ne damaa bëgg nekk député. bu la neexee nga ne damaa bëgg nekk jiite Sénégal. waaw amul lenn lu lay lu lay gàllankoor. Uh-huh. léegi nag ñoom dañoo wax ne loolu léegi dafa dafa dafa wonneeku coow li coow li loolu la. loolu daal moo indi problème bi coow li coow li loolu daal mooy premier masalan li indi coow li. waaye dégg naa nga laal ci benn mbir muy hmm. nga ne ki fi nekk daal dafa mel ni kon kilifa yi. Hmm. dañu ko dañu ko dañu ko waxul maanaam dëgg bi ñuy. xaar si waaw xaw ma li ci suuf de waaye li ci kaw man. waaw mosuma dégg kenn mu ne. cité ko ne lii nga def du dëgg. lu dut masalan benn benn ci ñoom ku mel ne suñu bàyyi Habib Sy uh-huh. bu bu uh, uh, masalan suñu maam Abdoul Aziz Dabakh uh-huh. ca jamono manifestation yi passé woon moom déggoon naa ci mu wax ci lu am solo uh-huh. wane ne kilifa yi nañ ànd ak bi ndax seeni taalibee ñoo ci nekk te itam loolu mooy li dëgg mm-hmm, mm-hmm. waaye ñi nga xam ne ñu am kàddu lañ mm-hmm. te ñëpp di leen déglu ku ci toog ak daal président bi di ko wax dëgg ñun loolu lañ soxla léegi waaye soxlawuñ taxaw rek ne masalan nañ woote jàmm nañ woote jàmm bu ñu wootee jàmm te defuñ li waral jàmm sax du am uh-huh. njëriñ kon daal soxlawuñ ku ci toog ak président ku baax la ku baax la eh, ku baax la président ke maanaam kilifa diine warul tagg njiit uh-huh. njiit kilifa diine warul tagg njiit uh-huh. yonent bi saai sallam boo gisee mu ne borom xam-xam yi ñoom ñooy fi wuutu borom bi ñoom la borom bi wóolu ci kaw suuf waaye fii ak jaxasoohuñ ak buur hmm. maanaam xaritoohuñ ak buur kañ buñ ko defee war nañ yàlla war nañ yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dañu lurul toog jaxasoo boo xam ne nag da nga koy wax dëgg boobu moom jaamu yàlla la mhm. amul jaamu yàlla bu na foor buur bu dëng nga ne ko kat da dëng buur bu tooñ nga xamal ko ne ko da ngaa tooñ ah. ka rek ci ji fii maa ngi koy wax masalan bakkan bakkan benn bakkan rek rek rek rek uh-huh. jarul masalan nit des ci nguur benn bakkan benn bakkan rek jarul nit des ci nguur jarul ko benn bakkan ndax bekkan bi faatu tey boo dajale woon àdduna bi yëpp pour mu jógaat mënuñ ko. mënuñu ko mënuñ ko yëkkati. waa léegi ñiy rey ay bakkan pour yéeg nag. a ah, loolu moom li ci alquran wax rek jullit moom képp ku ko rey tey ko. Ah. dëkk waaye mooy safara. liñ ko ñuy wax Muhammad ibn Abdul Wahab. jiite woon na ko Ibnu Taymiya waaye Ibnu Taymiya moom tane woon na ndax moom borom xam-xam la woon. kii nag Muhammad ibnu Abdul Wahab nga xam ne moom moo mboolem ñiy wax ne ñoom ahlu sunna lañ al wahabiya ñoom ci ñoom moom lañ askanoo. maanaam mboolem lu mu wax. dañ jàpp ne mooy alquran mooy sunna. mboolem lu mu waxut masala ñu ne du alquran du sunna bidaa la liñ la bañal yow. nga jàpp sëriñ. di ko roy. ñoom moom lañ jàpp ci seen sëriñ bi te wane ne masalan moom dong mooy sunna te sëriñeen bi seen sëriñ bi man maa ngi leen di laaj. seen sëriñam boobu ab Muhammad ibnu Abdul kan mooy sëriñam moom. kan mooy sëriñam waaw kan mooy sëriñam. Muhammad ibnu Abdul Wahab kan kan mooy sëriñam li muy jaamoo yàlla. Euh, fan la ko jëlee. waaw loolu question la nañu ko bàyyi. question la waaw maanaam loolu nu mu tuddee waxtu bi daa gàtt. Uh-huh. maanaam maanaam li muy jaamoo yàlla ndax manoo ñëw. Uh-huh. douzième siècle nga ne mboolem li la jiitu woon yëpp dunduñ sunna. Uh-huh. yow sa sunna bi foo ko jëlee foo ko jëlee. nga ne yonent bi saa sallam nii la loon jullee. ana kan moo la wax yonent bi nii la loon jullee foon nga jaar ci xadiis nga jaar. ci téere nga jaar téere yooyu ñan ñoo ko bind. kan fan la jaar ba yegg ci sa Uh-huh. beneen bi fi ma foofu may daaneel mooy. Uh-huh. alquran biy jàng bi ñuy jàng. Uh-huh. maanaam ñaar fukki riwaaye yi. ak xaddis yi ñuy jàng. kutubu sitta ak la ci aju yëpp. amul kenn ku ci am riwaaye bu wir. bu jaarul ci nitu tariq. amul ku ci am riwaay bu adduna bi ba mu daj laa wax amul kenn ku am riwaay alquran ci ñaar fukki riwaay bu wér uh-huh. ba ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wala hadis bu wér uh-huh. ba ci yenent bi lurul na ci nitu tarixa la jaar lurul ci nitu tarixa waa kay jeex kon affaire moom dafa dagg mais mais mais mais bëgg na nga lancer affaire bi ñoon ñu bàyyi ko xel dang ne waaw kum ci mën a doon Ahmad Lo ñi ko wër ak ñëpp. ba ci sëriñam ya ca màkk kay nga sëriñam ya ca màkk. fa mu jàngee waaw ñëpp sañ nga jaxaw ja ja jàkkaarloog ñoom <laughs> nii nii nii nii nii kon ñoon nañu ko nañu ko bàyyi xel. waaw duñ ko nangu man xam naa ko nangu. <laughs> xam ne yow pare nga mais ñoon dañu ko sañul. yow moom pare nga mais ñoon sañuñ ko kon ñu bàyyi ko xel. bu ko defee tabaarakallaahu ñu tàggatoo wax leen neen ba beneen yoon incha allah ñu ñëwaat fekk si waat Serigne Mouhamed Guèye fii ci Mbour ci daara ji fii la nekk fii ci Mbour ñu bàyyi ko xel wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu